tamassaktum bihima kitaabullah wa sunnati nabii assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur yu RTS ñu ñëw ci seen émission tafsirul Qur'an nuurul huda leeru njub bu leen RTS di may ci ajjuba mu nekk inchaa allahu salaamaaleykum wa rahmatullah très chers téléspectateurs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nous sommes ensemble avec l'aide de la RTS pour vous offrir Nourul Huda la lumière de l'orthodoxie un tafsir hebdomadaire incha allah ci suñu jataay bu njëkk bi ñu fas yéene séddoo ak yéen ni ñu gisee doxalinu tafsir bi ak lan mooy ay jubluwaayam liñ ci séentu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala mbokk jataay bu njëkk ci Nuurul Huda je vous partage la conception que je veux innovante et les objectifs de ce tafsir Nuurul Huda maa ngi wax tafsirul Qur'an waaye dama waroon wax tadabburul qur'an settental alqur'an jàngat alqur'an ndax fasu yéene def euh, tafsir bi ñu aadowoo gis te mooy firi baatu alqur'an dañu bëgg suñu jataay bi nekk jataayu jàngat jataayu gëstu jataayu saytu li nga xam ni moom mooy message bi alqur'an di joxe jëm ci defar adduna bi au lieu de tafsir du Coran je parlerai plutôt de méditation du Coran car je ne procéderai pas à une explication littérale des mots et expressions mais plutôt je vous invite à une étude à une méditation à tirer des leçons des recommandations et des enseignements du Coran pour loolu faw ñu jéem di ci njëkk ci suñu jataay yi xam li alquran wund lan la yàlla subhanahu wa joxe ci ay njub ay yoon yu muy teg jaam ñaareel bi ñu jéem a xool li alquran di wax wax na ko septième siècle waaye naka lañu ko mën a wàccee ci suñu jamono ñun suñu société bu vingt et unième bi naka la ñu mën a jëfe li nga xam ni moom la alquran di wax gannaaw bu ñu ko déggee ba mu la ainsi premièrement nous essaierons de comprendre le sens des enseignements et des orientations du Coran quand nous les aurons compris nous essaierons de voir comment les contextualiser comment adapter les orientations les enseignements les conseils la subhanahu wa la et de son messager paix et salut sur lui, comment adapter tout cela à notre société contemporaine du 21e siècle mbokk yi ku jàngat alquran di nga fekk fu bare alquran moom ci boppam di wax nan la bëgg ñu jànge kaka nan la bëgg ñu toppe kaka lorsque nous lisons le Coran nous l'étudions sérieusement nous voyons que le Coran indique lui-même la façon dont il voudrait être lu pour qu'on puisse le comprendre afin de suivre ses orientations et ses conseils li ci njëkk alquran li mu sàkku ci ñun mooy ñu settental ka tadabbur la ko yàlla tudde laaye ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saad mu ne kitaabun anzalnaahu ilayk wàccee naa ci yow téere bi yow yonent bi alayhi salaam wàccee naa ci téere bi yow mii di ma déglu téere bi nekk mubaarakun bu barkeel bu xéewalam du jeex njariñam du jeex li yaddabbaru ayaatihi wa li yatazakkara ulul albaab mu ne ngir nag ñu settantal ay jàngam ñu settental laaye bu ñu ko settantalee képp koo xam ni boroom xel nga da nga ciy mën a jariñu donc le premier conseil, la première orientation donnée par le Coran lui-même, c'est qu'on le médite. Le verset 29, sourate Sad, le dit. Nous t'avons révélé à toi, prophète, nous t'avons révélé à toi qui m'accompagne en ce jour béni, nous un, un livre béni, le Coran, pour que les gens sensés méditent ces leçons et en profitent. On retiendra méditer le Coran et profiter de ses leçons et de ses ñaareel bi ma nga ca suratul isra laaya ak juróom benn borom bi subhanahu mu ne alquran ni ñu ko war a jànge mooy ñu koy jàng ci tek ak teey mu ne wa quranan faraqnaahu li taqrahu ala nnaasi ala muks wàccee naa ci yow alquran bi di ko wàccee par ndànk-ndànk pour nga jàngat ko ci nit ñi di leen ko jàngal ndànk-ndànk itam wa nazzalnaahu tanzila loolu moo tax ma wàccee alquran bi par pàcc par laaya par saar diiru ñaar fukki at ak ñett ainsi le deuxième conseil du Coran le Coran veut qu'on le lise posément calmement lentement sans aucune précipitation c'est pourquoi le verset 106 sourate Isra nous dit nous t'avons révélé le Coran par fragments pour que tu l'expliques toi aussi posément, calmement, lentement et clairement aux gens. C'est pourquoi nous te l'avons révélé progressivement dans une période de 23 ans. mbokk yi ñetteel bi alquran bëgg képp ku koy jàng nga mooy nga ci jàngat di ci jële ay jàngat laaye bi njëkk suratul xashri borom bi subhanahu wa taala mu ni fa atabiru ya ulil alba mu ni yéen borom xel yi na ngeen jàngat ci alquran na ngeen ci tiire ay leçon jël leen ci bind dars yoo xam ne da koy mokkal di ko jëfe ci seen dund bis le troisième conseil du Coran c'est il veut qu'on des leçons de ces versets le premier verset sourate Hashr nous di tiire des leçons du Coran, tirer des leçons de ce que vous lisez, vous qui êtes sensible. kon nag bu nu toppe ndenkaane yi alquran joxe nuurul huda bu boobaa dafa war a soppi sunu diggante sunu jëflante ak alquran def ka ñuy jëflante ak risaala yàlla bi message yu yàlla bi comme ni ñuy jëflante ak suñu téléphone portable ainsi très chers téléspectateurs si nous suivons ces consignes du Coran Nourul Huda devra changer notre rapport avec le Coran devra nous faire adopter avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala le même comportement que nous avons avec notre téléphone portable ñun ñëpp gis nañu seetlu nañu ci li ñu wër ak ci ñun ci suñu bopp bu téléphone yëngoo rek moo xam message la moo xam dafa woote nit ki amatul jàmm day dal di tëb daw këf téléphone bu fekkee message bi ma jot ci làkk bi ñu ma ko waxee man dégguma làkk bi ci saasi dootuma am jàmm damay dem wuti koo xam ni kii dana ma ko jàngal ba wax ma ni liikat lañu la la wax ci message Ainsi, nous le remarquons tous. Dès que le téléphone signale un message ou un appel, sans tarder, nous nous précipitons sur notre téléphone portable pour prendre connaissance du message. Si par malheur je ne comprends pas la langue du message, je fais aussitôt appel à quelqu'un pour me le décoder. gis nga ci boobu jamono li ëpp ci ñun message yu yàlla bi nga xam ni moo bind ki leen di jox message yéguñu sax ni message baa ngi fi faalewuñu ko euh, ñàkk yëg googu ñàkk yitte ci alquran ak message bi mu nuy jox du ma bett man su fekkee mu ngi jóge ci nit koo xam ni jàngul nit koo xam ni mënul liir xamul. Chers téléspectateurs la majorité d'entre nous reste indifférente au message du Créateur, de ceux qui nous envoient des messages dans notre portable. Mais ce comportement ne me surprend pas si c'est de la part d'une personne inculte, non instruite. li yéeme di ma jaaxal di ma nit koo xam ne bis bu xëyee ràññee ba famu mu toll journal bu ne ci kaw suuf génn bis boobu dana ko liir nit koo xam ne liir na ay téeméer ay junniy téere téere yooyu yëpp benn nit mooy wax ni man may Masamba ma Demba ma Kumba Xujja Faatu maa bind téere bi ma bind article loolu lépp nga kay liir te benn message taxaw ci sa kanam ni la man kenn bindu benn nit bind benn jinne bind man boroom bi moo ma bind waaw loolu warul woon nekk kéemtaan ba bu ñu ko gëmul sax ci dañ kumpa rek ñu xool téere bu kenn bindul mais nan la war a mën a taxawe ak nan la war a mën a doxe ci suñu diggante ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal nu ñuy bokk ci ñi nga xam ni ay yëgata lañ yàlla subhanahu wa taala wërsëgal nu ñu bokk ci way dégg yi mën a topp loolu yomb na borom bi yàlla na nu ko defal ñu déglu baraax mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ali ñu dellu si waat incha allah je vais maintenant vous proposer que notre tafsir sorte des chantiers battus. Au lieu d'aborder les sourates selon leur succession dans le livre, c'est-à-dire de Baqara à Nasi, comme nous avons l'habitude dans nos mosquées, je vais aborder les sourates selon leur ordre de révélation mbokk yi li ñu fas yéene doxale tërale sunu jataay mooy ah. wuute ak ni ñu tàmme defe suñuy tafsir ci suñuy média ak ci suñuy jàkk xam nga foofu dañuy jël saar yi topp ka Fatiha Baqara Ali Imrana ba jëm naas yi tey nag ma bëggoon ñu topp saar yi ni mu doon wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy lan mooy ni dañuy tàmbalee saar bi njëkk wàcc muy iqra buñ ci jógee saar bi ci toppoon nga xam ne moom la jibril jox yonent bi alayhi salaam mooy suratul qalam nuun wal qalam ba mu ñëwaatee ñetti yoon bi dafa jox yonent bi alayhi salaam al muzammil yaa mudammil mu ñëw ñeenteelu yoon bi jox ko yaa ayyuhal mudathiru ñëw juróomeelu yoon bi jox ka suratul fatiha bi ubbi téere bi te très ce procédé veut simplement dire que nous allons commencer par la première sourate reçue par le prophète alayhi salam qui est Iqra. Ensuite, lorsque Jibril est venu, il lui a donné la sourate al À la troisième visite, c'était la sourate Al-Muzammilu, l'enveloppée. La quatrième visite, la sourate al Et la sourate al qui a été la cinquième révélation reçue par le prophète Muhammad paix et salut ni ñu ko xamee ñun ñëpp moy ni ni saar yi toftaloo ci téere bi di alquran kooku jibril moo doon ñëw di wax yonent bi alayhi salaam jamono bu ko joxee laaya ni ko laaya bi def ko ci bërëb sàngam diggante laaya sangam ak sàngam wala mu ne que laay ji wala groupe bu laay bi dafay tàmbali saar bu bees noonu la doxe ñaar fukki at ak ñett bu jibril demee yonent bi alayhi salaam ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ko doon bindal alquran bi mu ne leen laay ji teg leen ko bërëb sàngam wala na dal boppu saar ni ko ka jibril waxee kon kooku waxyu la comme nous le savons tous La disposition des sourates dans le Coran a été dictée au prophète alayhi salam par Jibril qui pendant les 23 ans de la révélation à chaque fois qu'il un verset un groupe de versets lui disait placez cela entre tel et tel verset bien ces versets ou ce est le début d'une sourate qui donc être précédée par Bismillahir Rahmanir bu ko defee li des ci ni ñuy toppe ñun alquran di ko jël ci ni mu wàcce ci yoonu bi alayhi salaam kooku da ngay fekk mu nekk ijtihaad jàmbaaru ñi nga xam ni ñoom ñoo doon saytu borom xam-xamu diine ànd ak nag amuñu ci sax ijma moy mooy ñëpp mànkoo wuñu ci loolu waaye ni ñu ko waxee ñoom mooy disposition boobu ci ci ci toftalu waxyu gi boobu rek moo nekk ci téere ulumul quran yi nga xam ni moom la ñu la chronologie de la révélation que nous comptons suivre elle est le fruit des efforts des savants et cet effort ne fait pas l'unanimité mais comme ils disent tous dans les livres de science du Coran C'est ainsi qu'on le trouve généralement dans les livres qui traitent de la science coranique lu ci mën a am ñuy mébét rekk topp ni alquran ji wàcce ni bu nu ko toppee benn bi mu njëkk jariñ mooy dana nu dellu ñu topp alquran ci jamono bi mu doon wàcc ak ci ni mu doon wàcce ci juróom-ñaareelu xar dananu nu itam ñu mën a dégg alquran bi comme ni mu wàcce woon ci yonent bi alayhi salaam ak réaction yi nga xam ni moom moo am ci bi alquran wàcc ainsi suivre l'ordre de révélation je l'espère et c'est mon souhait premier nous permettra de replonger dans le contexte du septième siècle et nous permettra peut-être une meilleure compréhension des enseignements, des orientations, des versets, et nous écartera des discussions inutiles bu ko defee danañu mën a xam nan la ñuy fexe ba alquran jooju ñu wàccee ko nag ci suñu jamono loolu moo nuy may nuurul huda comme alquran ni mu tëdde wax na ne ma farratna fil kitaabi min shay fàttewul dara bon thème yëpp yi nga xam ni dana ko aborder mu ngi koy wax bu ci nekk buñ ci tolloo incha allah ñu wax ci li tollook sunu soxla ci sunu jamono ak li tolloo ak suñu dégg-dégg ak suñu gàtt xam enfin ce procédé je l'espère nous permettra de de pouvoir traiter les thématiques dans leur ordre et toutes les thématiques puisque le Coran est holistique. Il n'a rien omis, comme dit le verset 38, sourate An'am. ñu ñaan yàlla subhanahu wa mu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loolu borom bi Maintenant, nous allons écouter le prophète alayhi salam nous présenter le Coran, nous présenter ses objectifs. Un jour, il dit aux compagnons, il y aura bientôt des épreuves terribles, graves. Seyna Ali, radiallahu ta'ala anhu, lui dit, comment nous en sortir envoyé d'Allah? Il lui dit, le Coran, le livre bu nu bëggee xam alquran dañuy dellu ci ki mu wàccoon gën ji mbindeef bis mu toog waxtaan waxtaan woo xam ne présenté na alquran mu ne innaha sa takunu fitna mu ne fitnaa ngi ci kanam buy bu rëy bu garaaw buy ñëw saydna ali ni que fa mal maxraj minha ya rasulallah lan moo ñu ci génnee naka la ñuy moytoo fitna mu ne que kitaabullah téere yàlla téere yàlla mu ne téere yàlla boobu fiihi naba'ukum wa naba'u maa qablakum mu ne téere boobu di ngeen ci fekk xibaaru nit ñi leen jiitu woon ci àdduna ba àdduna sosoo ba jamono bi bi ñuy wax ñun daa ci fekk li xew wa xabaru maa ba'dakum dana la wax ñi ñëw sunu gannaaw ñun vingt-neuvième siècle wa xukmu maa baynakum dana wax nag yéen seen atte seeni mbir ci seen diggante dana leen wax na ko ngeen kay huwa al faslu laysa bil hazl moom mooy kàddu gi dog wér du ay caaxaan la première caractéristique c'est que le Coran dit le prophète alayhi salam vous informe sur les communautés précédentes vous informe aussi sur les communautés qui viendront après vous il contient le Coran le jugement de vos problèmes la solution à vos problèmes Il est le recours décisif. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une parole frivole. mu teg ci mu ne man yaruddahu min jabbar xasamahullah mu ne képp ku wóolu sa kàttan ak sa doole sa man-man ba nga ndëkk alquran du mooyu ko mu ne yàlla rëq sa ndig wa man ibtaxal huda fi gayrihi adallahullah mu ne kuy wuti njub te wutoo ko ci alquran nga wuti ka feneen yàlla bàyyi la nga sànq Deuxième caractéristique, tous ceux qui sont grisés par leur pouvoir, leur avoir, leur force, leur toute puissance, jusqu'à refuser de suivre le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les brisera. Et Allah laissera s'égarer tout individu qui cherche la guider ailleurs que dans le Coran. ñetteel bi huwa hablullahi al-matin moom mooy buumu yàlla gu teng dani mooy escalier bi nga xam ni boo ci yéegee yaa ngi jëm direct ci wa zikrul hakim moom mooy fàttali bu xereñ boobu wa huwa siratul mustaqim alquran mooy siratul mustaqim bi ngay ñaan bis bu ne ci sa juli lazi la tadiu bihi l am mooy téere bi nga xam ne ku ci topp sa bànneexi bakkan du la mën a jàddloo ba ngay jeex il est le câble incassable qui te mène directement à la destination. Il est le rappel sage. Il est le siratul mustaqim qui vous évite de suivre vos passions et de vous égarer en conséquence. wala tashba'u minhu l ulama yonent bi alayhi salaam mu ni ku xam ñam alquran mu ni dootoo ci suur dootoo ci doyal wala yaxlaxu an rad di ko baamtu bis bu ne ngay wax alquran ak ñu la koy wax du tax mu sàppi gis nga way bu gën a siiw bu amee ñetti weer sàppi na la bu yàgg wala tanqadi ajaibu mu ne ay kéemtaanam ay njariñam du jeex géej la goo xam ne amul tefes les savants n'en sont jamais rassasiés dit la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut personne personne ne se lassera parce qu'il répète chaque jour le Coran ou qu'il entend chaque jour le Coran Pourquoi Il dit parce que ces merveilles sont infinies, insondables. mbokk yi laa tantahi l jinn an qaalu inna samiana quraanan ajaba gis nga jinne yi ñoom ñoo raw nit ñi yonent bi sam ñu mu ne bi ñu déggee alquran rek yonent bi di wax dañuy buuxante wax na ko suratul jinn inna samiana quraanan ajaba ñun tey dégg nañu téere boo xam ni kéemtaan la téere boo xam ni taaram jéggi na foo ko mënal quand les djinns l'ont entendu dire la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et sur lui les djinns s'exclamèrent s'extasièrent nous avons entendu un Coran merveilleux extraordinaire exceptionnel mu man qaala bihi sadaq bu fekkee da ngay waxte sa wax nga koy jële ci alquran loo wax dëgg wa man amila bihi ujër ku jëfe sa jëf nga tekk ci alquran yàlla fay la ñëpp gërëm la ñu ni la jërëjëf wa man xakama bihi adal kuy atte te sa nga tekk ci alquran loo atte njub lay doon maandute lay wa man duwiya ilayhi hudiya ila siratin mustaqim képp ku la wommat jëme ci alquran topp ka ndax mu ngi la jëme ci yoon wu wa man yaatasama bihi hudiya ila siraati mustaqim ku ngoy ci alquran mooy nga téye ci ba dëgër mu ne yow yaa ngi ci yoon wu jub bi doo ko wàcc ba ni ci biir al aljanna yal nañ ci yàlla quiconque argumente à partir du Coran dira toujours vrai dira la vérité quiconque suit ses orientations sera récompensé parce qu'il fera toujours de bonnes actions celui qui juge à partir du Coran rendra un verdict juste et équitable mbokk yi alquran bi moom moonuy woo jëmenu ci njub alquran bi ku topp li mu lay wax nga ci celui qui t'invite au Coran t'oriente sur la droiture celui qui respecte ses orientations sera dans la siratul mustaqim la voie droite jeexale suñu kàddu la rabi ibbo amir waxoon rustum ni ka alquran dafa ñëw ngir génnee ku mu soob ci lëndam yóbbu ci leer jële la ci xatu àdduna yóbbu ci dund tedd jële ci jengu diine yóbbu ci njubu ñaan yàlla subhanahu wa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 mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg fokki lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu yàlla bi jaa'i nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إن إنه أواب وتركنا بعدهم يوم